maa ngi lay fay érage eh, di la gërëm ci eh, jàpp micro bi pour yëf yi gën a yaatu di la fay di fay mbokki internet yi nga xamante ne que ñoom ñooy suivre Dakaractu ci jamono bu ci nekk eh, rawatina surtout les sénégal de la diaspora le Sénégal de la diaspora yaakaar naa daje bi nga xamante ni tey moo ñu fi dajale di combat bi nga xamante ne taxaw na bi mu taxawee ak tey nag ñu fas yéene ñëw ci li nga xamante ni moo di face à face bi dama bëgg naa nag ñu waxtaan ci li nga xamante ni tey moo di ñaari qualité mbëri damay njëkkee ci ki nga xamante ni tey moo di Tapha Tine may wax ci Tapha Tine euh, euh, c'est le genre di bool euh, Tapha mu ngi révélé boppam defe naa ci clafu 2005 ba digganteem ak Yékini Junior ba rek defe naa ni Euh, mooy comment bi ko taal mooy bi mu ko yëkkatee ba ci kaw dóor ci suuf yàlla def mu daje ci ak Lac 2 perte teewul muy continuer yoonam euh, ba ni mu dalee ci Balla loolu nekkoon combat boo xamante ni que Sénégal gépp joxoon nañ ko bopp yàlla def mu ñëw ñàkk dugaat aussi ci CLAF euh, CLAF boobu tey dama jàpp ni que li basculé carrière ru Tapha Tine lépp ci CLAF boobu la jóge nga xam ne waa groupe Excaf ñoom ñoo ko organisé woon ndax gis nga CLAF ba def ca dugg doon favori tey bu doon course la dañ naan Tapha ci yoon incontestablement moo war a jël pied ndax calaf buñ la booleeg euh, euh, Ama Baldé Zos ak Guy gi donc ñaari combat yi réussite la ci moom mais dekle bi mooy digganteem ak Ama Baldé ba xoolee keroog bi mu keroog bi mu jëlee finalu calaf bi keroog dafa jooy bi mu daanee bi mu daanee Guy gi biñ ko nee loo jooy dafa ni sama diggante ak Ama war ma koon perte parce que xam na ni que combat boobu liy jaxase carrière am à l'avenir combat boobu indi gis nga ci diggante bi Tapha dem na ba il avait du mal pour am adversaire bu leer ndax tey Tapha ni mu toll ci taille macha allah euh, ni mu toll ci poids te tëlewul bëri mën na bëri mën na xeex donc bu amee échec ci diggante ak Ama Baldé dafay indi ay turbulence ci carrière am yàlla def mu <laughs> bëri fi waat Yékini Junior Pape Thialis mi tey moo ko tegoon ak le groupe Leewtoo fële ci Diourbel euh, ndax moo ko Yékini Junior moom dafa daanoon Yékini Junior ca kalaafu 2005 ba donc revanche amat yàlla def mu daanaat Yékini Junior mais ba tey doyul parce que daf ko tëjal buntu mag ñi tëjal na ko mënatul jot Balla Gaye mënatul jot Gris Bordeaux mënatul a jot Lac de Guiers 2 donc mënatul jot mbër yu mbër yu bëri kon est-ce que jëlaat Boy Niang logique la ci moom man question boobu laay posé toujours parce que échec bi mu amoon ci Ama moo ko indil zone de turbulence bi bu fekkee dafa am amaat une deuxième échec sur Boy Niang. est-ce que jëlaat Boy Niang logique la ci moom. waaw xam nga man jë maanaam raccourci Lac 2 revanche la woon moo gënoon logique ci man. ndax tey diggante mag booy Niang mën na ci am ndam mais mën na ci am leneen ndax Boy Niang bu ñu fàttali nag mbër moo xamante ne que mbër mu mbër mu mbër mu mën ponkal la yàlla moo ko may loolu ñu ci bari nag xëj na jox nañu euh, Tapha Tine favori ci làmb ji effectivement logique la ndax ci wàllu expérience moo mag booy Niang moo ko jiit ci làmb moo ko ëpp doole moo ko gën a moo ko moo ko moo ko moo ko sut maas mais aussi na ama ba na Boy Niang def très

boo xoolee keroog contre la de bokk na ci li ko indil problème ndax bi mu ñëwee moom ak Lac dañoo xaw a niroo lenteur bu bëri moo tax combat ba gis nga na mu muccee mais Tapha Tine daal du mbër moo xam ne da nga koy da nga koy indil damier parce que combat bi Tapha Tine liy avantage mooy neutraliser Boy Niang neutraliser ko téye ko organiser bagarre mën a xeex ak moom am li muy am ci moom boo Niang am na ay potentialité aussi ci combat bi mais attention première sorteem ci poids à yi entre guillemets dafa échec contre Lac 2 mooy amna fa <laughs> lam fay am bañu jox Lac 2 victoire Et effectivement combat bu Boy dafa daanu donc Balla gay la doon yotu ñu ne ko benen test ngi donc sur les test bi Balla gay dootu ko bañ mais ce fekkee tafatine Tapha Tine da ko freiné foog mu deltu gannaaw am na ay bor yu moom ci gannaaw digganteem ak garga revanche la digganteem ak guy gi revanche la digganteem ak Sa Thiès la mu delluwaat ci ay moromam defat ak Zeme pour mën a accéder waat waaye bés la boo xam ne tey bu dee soxla Tapha soxla na ko pour déclencher waat fekk ay moromam bu dee soxla la Boy Niang soxla ci bu wér ndax mooy deuxième examen pour dem yóotu ji Balla Gaye alias Cukkuli wala digganteem ak Balla Gaye Bordeaux ku ci daan mu fekk la waaye punkal tamit bu Tapha Tine amee ndam mu neex mu naqari revanche ak Balla Gaye dafay taxaw wala digganteem ak Gris Bordeaux dafay taxaw wala revanche ak Lac de Guiers 2 dafay taxaw te attention Tapha Tine la te mer gaynde mer la fananoo bari na doole na xeex te séeréer piir la waaye attention à Boy Niang càppaaculi la xale bu saf xorom la bu mën a danse la bu am ginnaaw Pikine la dëkk kon bés la boo xam ne jaaraama groupe Leewtoo la ñuy wax jaaraama Pape Thialis parce que saa yu làmb tollee ci zone de turbulence dina dajale voies et moyens pour mën a ñëw taxawal ay bés yu ni nii kon daal hélas bis bi dama la tey ouverture bi première jàkkaarloo bi ñoom ñaar ku ci nekk dina indi eh, état d'esprit buñ ko indee foofu la mbir yi neex man dem naa la